ne nañu leen rafetante njort ci suñuy biir ci suñuy biir kenn ku ne kenn ku ne boo rafetee njort ci say bokk boo rafetee njort yow ci say bokk yaa ngi dimbali sa bopp yaa ngi dimbali yow sa bopp ndax lu yàlla yi santaane ndax loo xam ne yàlla moo ko santaane bëgg ku ko doxal bëgg ku ko doxal ku ko def ku ko def dimbale nga sa bopp. dimbale nga sa bopp. bëgg-bëggu bëgg-bëggu yàlla. santaaneem. santaaneem. ku ko def rek ku ko def rek. dimbale nga sa bopp. dimbale nga yow sa bopp. te yàlla loolu la bëgg. te yàlla nag loolu la bëgg. ñu nekk nag ci jamono boo xam ñu nekk nag ci jamono boo xam ni. loolu lu jafe la. loolii lu jafe la. waaye. waaye nag. li muy jafe-jafe. li muy jafe-jafe jafe. nañ leen fexe ba am ko. nañ leen fexe ba am ko. nañ leen àndandoo bokk fonkante moo gën xeebante yàlla nee na bare na nag yow koy xeeb te fekk na koo kee la gën bu ngeen dajee ci man la muy am ci man yow moomee doo ko am ci man kon nag nañ leen àndandoo bokk fonkante ne ku gis sa moroom ak melokaan woo gise sa moroom moomee waxal yàlla ni ko waxal yàlla ni ko. ay waay waay. meloon na kii day. man de su ma meloon na kii day. baax su ma meloon na kii day. su ma meloon na kii day baax. mun la xanaa yow danga nga dof. mun la xanaa yow danga dof. yow kii moo la gën. yow kii moo la gën. nga ni waaw nga lu tax mu gën. mu ni waaw lu tax nga wax moo la gën yow. nga ni li ma def yàlla. nga ni man li ma def yàlla. xamaguma ko ci moom. xamaguma ko ci moom. gisuma ko mu def ko yàlla gisuma ko mu def ko yàlla. koo gis rek jàppal ni moo yow daal koo gis rek jàppal ni kii moo la gën.